ba tey ci seen scandale du jour euh, kuramaki nag euh, sama yaay ji yàlla gudd fan yàlla may ko wér moom wàccee na Thiès dama bëgg ñu seetaani vidéo bi ñëwaat. Kuramaki Amadou Ba cinquième président Amadou Ba cinquième président yàlla ba hmm, président dina leer lépp dina leer ku leen wax Amadou Ba day nekk cinquième président waaye ah campagne de lu la neex wax boo sañ neexe euh, premier tour ngay gagné euh, quatre-vingt-quinze pour cent yàlla ba eh, ñoom ni ba pare ji waa Jomaay bu ñu joxee sondage nga gis ni Diomaye mooy gagné waa amadu Ba bu ñu joxee sondage nga gis ni Amadou Ba mooy gagné ah dimanche yàggatul tey la jeudi lépp dina lay carte sur